ngir gën a tàggat wante it ñaax ndaw ñi ak jigéen ñi ngir ñu mën a dugal seen loxo ci kuréel ya ñuy jëlee ay ndogal ci seen biir réew association des juristes sénégalaises dafa lancé ab projet duppee ko politisons les femmes et jeunes boobaak léegi toll na ci benn at muy projet bi nga xam ne ambassade bu royaume des Pays-Bas fii ci Sénégal moo ko dooleel. politique bi wax nag du leneen lu dul fépp foo xam ne. ñoo nga fay ay kuréel yoo am ne yoo xam ne taxaw nañu fay décider ñoom it xale yi ak jigéen ñi mën cee dugal seen loxo bokk ci li ñuy nas loolu mooy euh, participer aux instances de décision donc politique boobu ñu bëgg dañ ci forme xale yi di ci former jigéen ñi am nañ gaa ñoo xamante ne wax dëgg yàlla xereñ nañ ci lool mais ba tey boo xoolee euh, lim bi lim bi nga xam ne moom la ñu natt ci jigéen ñi ak euh, xale yi ni ñu bokk ci instance yooyu lim boobu dafa xaw a gàtt ca noonee itam AJS mu ngay wéy di def ay jéego ngir gën a ñaax ndaw ñi ak jigéen ñi ñu mën a dugal seen loxo ci wàll wu ni mel. nee nañu ci wolof euh, peccam liir bala moo mën a neex euh, mag ña jàpp ci mbagg yi donc euh, xale yi ñoom kese mënuñoo dem foog ñu jàppale leen looloo tax nag ñu bëgg mag ñi muy góor muy jigéen mag ñi itam dugal ci seen loxo. former xale yi xajal leen xajal leen surtout ndax itam bu ñu leen xajalul du mën a dem. donte ñu ngay def ay jéego ngir ndaw ñi ak jigéen ñi mën a dugal seen loxo ci kuréel ya ñuy jëlee ay ndogal ci biir réew mi. dina baax itam pouvoir public ak politique yi gën leen ko yombalal bu ko defee ñu mën a yegg fa ñu bëgg a dem.